asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokki taalib yi ngi leen di ziarat bu baax a baax seen mbokk mi Mouhamed sen Baye Fall moo leen di ziarat bu baax a sama ziar bi nag dama koy teg ci loxo si El fay ca France mu tasaare loo ko ndax moom mooy tasaarekat bi maa ngi jéglu war sama mbokki taalib yi nga xam ne depuis premier safar ba léegi déggu leen ma leen di ziar bu tay nak doon bisu magal Touba ñuy magal di ñaan barke Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru am di Moodu Mbenda Fall kenn ku nek fo nek lay sa aajo yalla na Sëriñ Touba fek ak rasulullahi fa sa aajo bi jay Seydil wujur wala mi Soodi barke Sëriñ Touba ma ngi jaar ñepp di ñaanal ñepp di ñaanal wa Europe Afrique Asie bi ak amerique bi gis na gañ seen taxaway bi ci sama safar gi gis na gañ seen taxaway bi ci safar gi tabarkàlla safar nak man mom moko ko sëñ waxon nañ safar de ma don safar gis na taxaway ak kum ci man di don na nga xamne rek jox naa la loxo bi di la barke suma limé duma joom waye dama dul matal waye Afrique Europe Asie Amérique Mauritanie Gabon ma len li ziar ñep tabarkàlla kum ci doon rek jappal ne jox la sa loxo bi ndax dama bari ay soppé te soppé yi xawma len te man duma yor keuyit xana keuyitu alcorane xana keuyitu binduma liste. màjjaaluma ñaanuma saraxuma maa ngi leen di ziar bu baax a baax tey wax ni feeg doomu aadama mi ngi soxla li ci poosi gaañ yi incha allahu taala du wax dëgg mane ne feeg waa ji mi ngi soxla li ci poosi gaañ yi du wax dëgg mukk ci àddina loolu moom am na kon noo leen di ziaraat bu baax a baax yaakaaruñ ci yéen lenn. yaakaaruma ci yéen benn dërëm yaakaaruma ci yéen benn addiya xam nga addiya mooy lan addiya koo ko jox ku nekk na la mën a tabal àjjana ku la mun tabal àjjana waroo ko jox addiya sëñ bi sëñ Tuubaa ko wax Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulullahi moo wax ne képp koo xam ne boo ko joxee addiya mun laa tabal àjjana waroo ko koo jox sinon nag yow mi toog ñu lay jox addiya nga koy lekk. te mënoo yóbbu gaañu àjjana yaa ngi def ngan di erreur parce que su eggee foofa noona yow ma laa tati fardan yow ma laa tati boo ca eggee laa wax addiya jaamur yi nga doon lekk te mate woo ko yow la ñuy jël yow téegal dugal sawar jël ñi la doon jox addiya yi ak leen ci jubloon yóbbu àjjana kan moo war a lekk addiya tey ku jàng boo noppee ne jox leen ma addiyee Sëñ Tuubaa ku jàng boo noppee jox leen ma addiyee Sidi Aji Malik ku jàng boo noppee jox leen diw yooyu man maa njëkk a laaj addiyee ci internet man Mouhamed Sène Baye Fall 272 76 272 45 27 mooy sama numéro dama doon tànte di xool gaañi fu mu toll tante naa ko kenn dugut kenn ana alaaji fay ca France moom de dugal na Ibrahima Ndiaye lébu lébu seerafal bi dugal na ku ñuy wax yaawu yaawu waa Sénégal la waaye ma ngi ca Mauritanie dugal ñoom ñett laa gis seen yéene ci man moo taxoon ñu def loolu da taxoon man itam may laaj loolu soxla uma ko woon ci ñoom dama doon xool fu ñu toll rek benn numéro bi laa yor de du ko dindi du ko soppi du ma ko changé Sëriñ Tuubaa dafa wax ne toog fu la neex def lu neex ba faatu dem fu la neex ku gis fu mu am dem fa waaye fii bi Tuubaa njaarim loolu amu fi sëñ bi mhm. màggal gii ci bis bii ak tolluwaay bi ak ahmadu mi jumaa ji xaside dongo yi waaw kay ni ma bul ko bañ a wax gis nga doomu aadama da nite soo noppee nite doon mala te doomu aadama bi ko saa borom teralee ku ci yàlla defoon mbaam doo ko sañ bañ doo ko mën a bañ yàlla kum defoon ñu lay terale gan nga nekk ganaar doo sañ bañ doo mën a bañ ak yeneen yu dul yooyu ku ci xaar ak yooyu ku ci defoon mbaam ñu lay takk sareet lay yëpp ay sareet ndox doo sañ bañ doo mën a bañ waaye suñu boroom defut loolu de dafa ñu dafa jalax yooyu yëpp ñu weesu mu jël ñu def nu ay doomu aadama loolu rek jaroon na ñu koy sant. Hmm? ci biir cant gi ci biir cant gi ni sant yàlla ci def gi mu def doomu aadama suñu borom dañ ko war a yoralaat geneen cantaat encore ci biir cant googu yi mooy def gi mu def doomu aadama dan ko yoralaat sun suñu borom dañ ko yoralaat cant gi mooy boole gim ñi boole ci xeetu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad borom bariyeeru oor bi nga xam ne ak mënul waraa mu gën a mat ci mbindeef yi xalxan waxul xan zahara mis lu xattu lan yuraa wala semi sayyidina borom bariyeeru bi waaw sun boroom tànn gaaña bàyyi bàyyi fa ñëpp tànn ñun boole ñu ci askanu rasulullahi loolu jëraat nañuy santaat rasulullahi jëraat nañuy santaat yàlla waaye ci biir tànn gim ñu tànn moom suñu boroom ci biir njabootam boole ñëw Seydina Mohamed daf noo boolewaat ak Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasulullahi xanaa loolu nag moom tribul cant la nag sëñ bi doyutoon dama ne ndax doyut. ci kesing ke seigne Touba nak ci lañu tané wat bay fali ma ngi ziar sama bay fali ci amerique sama bay fali ci Asie ma ngi ziar sama soxna soxna May ma ngi lay ziarat bu baakha a baax a baax foofa ca Autriche ma ngi leen di ziar bu baax soxna Ndeye Fatou Diagne ma ngi di ziaraat baax ziar wa kër seigne Mbacke dem wa kër seigne Mour dem wa kër seigne Mour gi fi ci di ziar wa dakarou ak wa Ndar ñepp suma tambalé ziar rek duma ci genn waaye lii laa yëg guddig màggal laa waxtaane sëriñ Tuubaa nii nag laa koy waxtaanee ndax Cheikh Ahmad Bamba dafa waxoon ne julli leen wóor leen asaka muurum koor aji màkka ana yooya ndax gaañaa ngi koy def wala déet Cheikh Mamadul Muntaxa Mbàkke Bachir bañ nan sëriñ si dañuy xaar ambalogu gaay yi ambaloog yi li ñu yaakaaroon sëriñ si koy xaar Covid 19 ñëw moom moo njëkk a joxe 200 millions sëñ bi 200 millions la joxe sëñ Mountakha Mbacké Bassirou fii ci senegal ma ne xeexu Ousmane Sonko ak euh, Macky Sall ak waa Osan ak waa Ndakaaru ak jeunesse bi ak waa réew mi seen xeex ba moom lu ci yoonu sëñ Mountakha moom waaye defut loola de da leen a bàyyi leen ñu bàyyi mu neexal ñëpp ñu yem kooku ay sëñ Tuubaa maa ngi ñaan sëñ Cheikh Jëmb Fall. sëñ Cheikh jëm mom ah, ñaan de muntu ñak ci julit ñaan muntu ñak ci mourid ñaan muntu ñak ci Abbaay Fall waaye wallahi billahi wallahi tallahi barke maam Cheikh Rafal xam nga ni sëñ Cheikh jëmb jaayante nak Cheikh Rafal te duggu na hadratu Cheikh ibrahim Fall bal Mouridine ñi ñaan suñu am di Modou Mbène Fall yaa fi lol ma ngi ziarar suñ Cheikh tool ya suñ daam suñ Cheikh Fall ñu leen siyaar baax suma ma ziaré duma ci genn li ma bëgg a wax mooy murit day murite da ngay gëm gauche mbaa nga gëm droite da ngay ñuul mbaa nga weex sëñ bi li may bañ mooy naafeq yàlla moo wax ak rasulullahi ne ko isaa jaakal munaafiquuna xaalu nasaru innaka la rasulullahi walaahu yaalamu innaka la rasulu waaye yàlla nee na walaahu yaalamu inal munaafiqiina la kaasibuuna eh yow rasululay bu fekkee naafiq yi ñëw nan naan la yow de yàllaa la yónni ñun ñun suñu bopp gëm na ne yàllaa la yónni nee na yàlla nee na xam naa ne ñoom dañuy fenn waxuñu dëgg inal munaafiquuna la kaasibuuna maa ngi jéglu baatu kàcc boobu ma tudd noonu xam nga lu jublu am na ko ma laaj tey ci bëccëg benn télévision benn chaîne bu nekk Europe di ma laaj nu ab Baye Fall di mel mel ni Baye Fall day mel ni sëñ Cheikh jëmb rek ab Baye Fall ab Baye Fall mel ni Cheikh Fall moom amut waaye njabootu Cheikh Fall gi nag mel na ni Cheikh Fall suñu Aliou Fall Mbawor suñu Cheikh Fall Mbawor suñu am ni Moodu Mbend Fall suñu Cheikh Fall la ñu ko wër njabootam gi waa ko suñu Cheikh Fall Baye góor waa ko suñu Moodu Aminte Fall suñu Moustapha Mbar suñu Fallu ah, kay bu fekkee da nga bëgg a xam ne baay Fall di mel bu mu ko laaj man parce que man Mouhamed laa tudd Seen laa sant di ab Baye Fall bëgg koo doon. waaye wériguma ba xam ndax Baye Fall laa ndax Seera Fall nangul na maam déet waaye yow mi ma ko bëgg a laaj ci internet bi wala ci télévision yi demal rek kër sëñ Muudu Aminta Fall yow mu ma ko laaj de demal Mbàkke rek kër sëñ Muudu Aminta sëñ Moustapha Mbar nga fa tëjuwut fatuwut moom sëñ Muudu Aminta ma nga fa sinon nga dem Daaru Xafoor fekk fa njabootu maam Saliou Fall gi wala nga dem kër ci sëñ Cheikh Fall Mbawor waaw sëñ Cheikh Mbawor moom borom Mbawor ku fa dem moom bu dee alxuraan nga andi mu firil la ko bu dee comportement nga andi mu lijjanti la bu dee tawat nga andi mu ñaanal la lijjanti la bu dee xaalis nga andi mu delloo la ko waaw ci biir kër Cheikh Ibrahima ba lay génn kon ñi ma doon laaj ci wàllu Baye Fall loolu buñ ma ko laaj parce que man damaa pare pour doon Baye Fall pare gu ma ba léegi am naa ay njañ xaw ma sama kawar gi moo bari xaw ma style la xaw ma lu mu doon. bu dee alxuraan mokkal naa ko waay yaakaaruma alxuraan man alxuraan su ma toppee daf may lakk li ma yaakaar moo jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall te Cheikh Rafal la fay maye dara lay maye dara ci Cheikh Rafal mooy jëf dana ku jëf jël murid laay ku dëggal dugg Cheikh Rafal ne nangu njaam te des gor jaayante loo dul xàcc wax loo dul weddi nam lu jege te loo sori lool loo gis baax na loo dégg neex na baatu laa ilaaha illa lañ seqoon ak ñoom dis ko Hmm? bu ñu ma laaj ci Baye Fall yi am na benn saytaane bu ñëw léegi benn grand plateau fii ci màggal gi nii benn grand plateau waaw léegi Baye Fall yi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd mi di di di di taxawaalu ma ne ko ah xaw ma kuy taxawaalu de comme nee nga Baye Fall rek Baye Fall dit kuy taxawaalu kay du ab Baye Fall fi mu ne boo nee Baye Fall yi kay Baye Fall boo nee Baye Fall buy taxawaalu Baye Fall buy taxawaalu amut. boo xasee doon Baye Fall du taxawaalu taxawaalukat taxawaalukat la tudd Baye Fall Baye Fall la tudd léegi dafa boole ñaar ñu bokkut fi mu ne mun ma koo tontu ba mu dégg ma mooy noonu ñuy def rek ngàbb seen micro yi télévision bu nekk nga bëgg am bës bëgg def nangam bëgg nangam bëgg a nangam bëgg a yooyu nañ ko moytu kii laaj na xam ñi muy laaj dem naa ci plateau boo xam ne damaa daw parce que plateau ba ba ma demee dañ ma dañ lay maquiller ndax caméra yi ñi may maquiller ay gone yu jigéen lañ. Mohamed Sène Baye Fall nga war maa jàpp di ma nabb bee di jàpp sama tuñ yéeg sama sama lex yeeg gone gu jigéen goo xamee bokku leen nday bokku leen baay ma doon góor nga doon jigéen nga war maa jàpp di bës samay lex di di puudar di jàpp samay xef di puudar mel ni kuy mel ni ku yëm aw xew xanaa seen caméra yi amul jaf nañ taal jaf yi jël Baye Fall ñu mel noonu mu ma woo ay soxna ñu may maquillé man moo tax ma dagg émission ba saaga leen ndey ak baay maa ngi jégalu ci loolu maa ngi ñaan suñ Muntaxa Mbàkke Basiru yàlla na fi yàgg lool te wér barke am di Moodu Mbend Faal maa ngi ko ñaanal yàgg fi lool maa ngi ñaanal yaa njaxat jeng yaa njaxat wajur la ci biir kër sëñ Moodu kër sëñ am di Moodu Mbend yaa njaxat moom day moo daan jox añ bi mhm. yaa njaxat suñ Cheikh Fall mom moy sëfooru sëñ am di sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall daana dawalal way jurum de diko dawalal bu ko seigne bi ne ah, Cheikh Fall dama lay fay munoko fay ma bu ko fayé munoko joxanal ko addi naa la jox jox ko sa wajuru jigen ya jaxat mom moy mooy wajuram danañ yàgg àddina barke sëñ Tuubaa danañ fi yag dañu wër seigne da maa ngi lay siarat bax di siar nak njabootu seigne Amdi khadifal gep seigne cheikh khadifal Kati ngi lay siarat bax bax di ziar sama bajen bajen sonu jeug fall mang ko koy ziaraat bu baax ba suma tambale dugg keur seera fall duma ci genn way kep kum ci man di don ak kum ci man di don na nga japp ne fekk na la fa nga nek jox la sa loxu bi suku sa ñaari beuti oom yi jox la sa njibal gi ngir yim si du di da fall mi da dana fi yag rek da dana wér de ndax suñ Cheikh jimb kat jox nako ko yi te wax na len ni abay fall di mel de kérok dencu serigne bi kuko ko waññeeku gi sëñ Ibrahima Ndiim sëñ abdu Samb waa marché Njaaréem bii ak waa marché Ocass ca Touba gaañi fekke nañ ko xam nañ naka la armeel Touba yi nekk ci Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mourou Ablaye Fall lañ fu mujj a denc sëñ Mourou Ablaye Fall ndar sëñ Modou Ablaye lañ mujjee denc fii armeeli armeeli armeeli Touba sa waajuram wu tedd wa Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridine loolu ab cër la manu kaa yor caabi ja gars yi nañ manu ci Cheikh Ibra nan manu ci Serigne Touba nan manu ci Sidi Hadji nan manu Serigne Babacar Serigne nañ dal ku yëngu rek ñaari fan ñetti fan nga yaakaar ne yow la kenn du ci lenn kenn ci lenn Cheikh Ahmad Bamba khadimu rasulullah fi la tok ci njariñ bam yag mu rëdd ci suuf dal ni kay ma làqale teewul ñu duma la kay ma làqalu ko lu duma mu duma ko teewul ñu duma la duma ko làqu leen ci man ahmadu mi nga xamne ko ci man do gis ku jori mag ñi daan nan ko laq non ci yow laq ci man teewul ñu do re ma laq lay te ñu do la bi laqal bopam bak cheikhul khadim no ngi leen bax bax da mu doona waxtan nak ngir jëm magal gi di siar wa keur seigne ma sam may borom mbegere dama doon siyaar rek seigne eladji fay xamna ne premier safar ba lay gaayang koy xaar rek buñ màggalee bu nopi nak ci la bëgg waxtani seigne Touba wa buñ màggalee magal gi bu nopi comme premier safar ba légui nak mom damay sante seigne Touba ba sama baat bi wacc waaw damay sante seigne Touba bu guddi damay yuuxu di sante seigne Touba ku ma gis ne waxal jërëjëf Sëriñ Tuubaa fekk yaa ngi koy wax ma koy wax léegi sama baat bi dee ma xëy suba teel luñ dégg dara sama baat bi nag su su wàccee ndeysaan su ma bëggee euh, defar comme genre audio yi du ma ko sañ duma ko sañ du ma ko man comme day wër àdduna bi te baat buy rëcc lay doon làmmiñ sunu borom daf koo defal fanweeri bëñ ak ñaar wutal ko ñaari tuñ tëj ko kon bala ngaa wax na wax li nga xam te woo ma shahidna illaa bi ma alim na maa kunaa li xëy bi xaafisi waaye bëggoon naa yaa jamaatul muslimin mbokki taalibe yi mbokki jullit yi bëggoon naa yéen ñëpp ngeen ñaar sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru mu yàgg fi lool te wér barke sëñ Tuubaa te dana fi yàgg dina wér kat ruuxuk boppam gi nag moomu ko waaye dana fi yàgg te dana wér de sëriñ Babacar Si Mansour ca Tiwaawan Mouhamed Baye Fall mii mi ngi lay siyaar dina def jabb sa ñaari loxo yi cir bi ma jox wa keur Serigne Touba ñi bu ko raw man sama kamil alxuraan ma Abdou Aziz laa jox kamil alxuraan 1994 ma Abdou Aziz si da baax Malick Mouhamed Sène Baye Fall mi ma njëkk bind kamil alxuraan bo xamne bind sama loxo bi yobbu ko jek saw moy bis bi Baye Ibou saxu genné adina fa la fek eladji si ci jek saw ak sëñ siidi fan leen fekk fekk dañoo ñëw jeg saaw ma ànd ak sama baay ñu ŋàbb kaamil alxuraan bi ñu ñëw ah, ah, bañ egsee sañcu piir lañ fekk ma Abdou Assis mi ngi yor mi ngi mi ngi war ci benn oto bu bula ànd ak ay gendarme din romb di dem maa sama baay ñu ngi toog ma yor kaamil alxuraan bi ànd ak sama wajur wu góor ñu war a dem jeg saaw doo dem Tiwaawan sëñ bi nekku te fi laa ko bindé ndiarim kër seigne Mor Mbaye Cissé fii kër sëñ Moustapha gay fi laa ko bindee kër sëñ Moustapha hmm ta la lay war moy seigne Moustapha gay mo jël won sama wajir bu jigen andi ko sunu keur seigne Moustapha gay sa bay ko jang alxuraan bu nop jangalat ma way teranga jooju la def ak wati wawon mané bis bus mam Ibou Sakho genné adina bis bobu la and ak sama wajir bu gor man ñi yebul ma abdou dosis ñu dem ñu dem tiawon fekk nu ko fa ñu dem jag neen ko baax dafa génn ndax bàyyi Ibou Sakho moo génn ña ngi koy denc ca Ngaparou ma fanaan fa maag sama baay bis boobu suñu mbàkki soxna loo borom tey fa bay laa moo na fa fekk indi fa juróom fukki nag fekk gàmm moo doon jub si 1994 ma doon xale bu ndaw parce que man 76 <laughs> laa judd xool diggante 76 ak 74 ah 76 ak 94. mokal na fi alxuraan jangi fi Nasran, jangi fi karate jangi fi basket jangi fi mécanicien jangi fi auto mokal fi alxuraan jangi fi arut jangi fi bayan jangi fi fiq ak mantiq way seigne bi li doy na seuk ma nga ziar sëriñ Babacar si Mansour ma nga lay ziarat ma nga lay ziarat bax bax wa baax ma fa wad wele yi di ziarat bax bax ñewut gi yeen kep gis nga. am na ku ma laaj Cheikh na Ahmad Tidiane Serif ma ne ko Cheikh na Tidiane mooy brin almet bi da ngay dem ci xew da dem ci xew ñu taal mana togg mana ya ba mu ñor nga añ ba suur raxasoo jël say kirnaa di secrétu waaye bu ñu la laajee brin almet bi ko taaloon anamu doo ko gis fekk ne Cheikh na Tidiane mooy brin almet ba moo taal mbana yëpp. borom wa nuuri kalaami illesi malata bihi kaw nag alxaayta bi am kinitil makkaani ci barabi place ko fay toog mu ne rasulullah sëriñ Mansour si borom daara ji si Abdoul Aziz Al Amin maam Maodo moom maam Abdou Aziz sëriñ Babacar si man sëriñ kër si Abdou waxuma sëriñ Babacar Mansour sëriñ Babacar Abdou laa wax sëriñ Baye Abdou waaw waaw borom tool yi borom daara ji vraiment lu ngeen wax ah ah wala seen fii na day laajte nag sëriñ moom day laajte. moom kay baasam moom sooy ba ñu koy moytu ah, ah dara sooy ba puus de hmm? Hmm? indi ma sadaxaatu ak lan lil fuqaraa yi ak kan mu ne la ak kan nga ne wal masaakiin mu ne ak kan wal amilina alayha ak kan wal mu'allafati quluub wa fi riqaabi ak kan waaw sëriñ day laajte moom day laajte amul taalibi bu jàngul sëriñ bu jàng la gëm Cheikh Ahmad Bamba waxoon na ne su ma naree xëy benn bis bu ma xamul dara ci rasulullahi ma faatu bis boobu. nu si ali nuura lisaan wal kitaab nag nu sian ah omat na lii ñeele man sëñ Tuubaa nuura lisaan leeri làkk yëpp wal kitaab ak téere yëpp ci jaban jamono seexul xadim mu ne asmaana xidmati jamono ba may liggéey foo doon liggéey mu ne atal kitaab tasilu ma sabata lil Mustafa yi ax naa yemi nii papalaay papalaay papalaay jeng papalaay jeng ca Medina xam na li may wax tey nañ bàyyi avion yu daanu yi nañ bato yu suux yi nan bàyyi oto yu accidenté yi nit ñi ñooy accidenté seen xol ñooy accidenté fim ne di faatu nit ñi dee nañ tey dox sin xol yi ñoo accidenté ci rasulullah yi maa ngi leen di ziaraat bu baax a baax nag te ñaan ci barke alxuraan képp ku indi aajo yàlla ko yàlla faj maa ngi ziaraat bu baax a baax nag suñu El Hadj maa ngi lay ziaraat bu baax a baax foofii ci France. li nuy dugal saa yu ko dugalee bu dul ci télévision yi wala ci rajo yi wala ci leneen lii may dugal ni maa ngi koy dugal day jàll fële tawarkàlla kan ko jàllale moom itam da koy téye ndeysaan te maa ngi cee def la ci war a def lépp liggéey bi rafet na lool tawarkàlla maa ngi lay jégluwaat bu baax nag ñàkk ngay dugal dara boobu ba léegi premier safar gars yi na ma safar safar safar premier safar dégguñu dara deuxième jour quatrième jour cinquième jour dixième jour quinzième jour dégguñu dara tey jii laay yëngalaat te fi mu lii balaa jàll dañuy màggal ba noppi kon am lu Sëñ Tuubaa nam maanaam safar du waxtaan du du du période bu ñuy waxtaan ci internet déedéet safar moom bu weeree feeñee rek murit yee tàmbali dootu jëriñu lay waxtaan la ci Sëñ yow da ngaa war di xool rek boo xoolee xam li xew ku xool rek xam li xew safar moom jëruñu naan la kii mooy Sëñ Tuubaa kii ay Sidi Aji Maalik kii ay nangam déedéet jaratu ko weeru safar moom boo xasee feeñ rek boo da xool yow tijjil say bët tey xool rek bu fekkee mënoo dem ca ca cant ga toogal sa biir kër boo toogee sa biir kër taalal télé bi da ngay mujj def juróom-ñetti fan yoo xam ne amul benn télévision buy wax leen lu Sëñ Tuubaa kookaa ko gañe te moom ma ñu ko ay ndox mu sedd saa xali xayrillaahi fii maa yomba maa saa xal bi wax la jan lillahi xat wasaltu inda galwaa waaye sëñ Seexul Xadim kenn du moom sëñ bi maa ngi seer sëñ Moustapha Saliou bu baax di yar sama mbokk bu baax Ahmed Bachir ñu ngi leen di ziar bu baax waa Touba TV yi ñëpp tawarkalla ak waa télévision yi ci adduna bi yëpp tawarkalla maanaam yi gëm rasul lay bëgg naa leen waaw président yi adduna bi nag nañ bàyyi xel loolu képp ku ñu gis ñu sabota rasul lay billahi boo dee président sa réew waa réew ma dañ la duma dinaa président bu mbéj mbéj mu saf sàpp nag kontaan naa ca mbéj ma man itam tawarkalla sa altuka bil qur'aani wal kutbi kulliha maa ngi leen di ziaraat ngeen ma jégal bëggoon naa mu yaatu lool sa altuka bil qur'aani wal kutbi kulliha bi asmaa'ika al ulya bi ayatin fusilat bima fihi manxuutun wa fihi muhmalun allawtu bi ruuxi wal jismi xad daxlat barke sëñ Tuubaa mucc ak wér ak wërsëg aju ji fajoo mbir mu jub saay rek baatin doole sëñ maam kàttanu Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne yu mbakke borom xel kom jaaga maa ngi leen di ziaraat bu baax a baax tawarkàlla yal na yàlla barkeel suñu alaaji fay dafa mel ni ziar bi ab ziar la woon rek ci biir ziar yi dafa xawoon a kii nag xawoon a xat wax dëgg yàlla maa ngi jégalu waat baax ak mbokk taalib yi ko doon topp ci internet bi ñëpp bu màggal gi weesoo incha allahu taala da ngeen ko déggaat seen mbokk Mouhamed Sène Baye Fall moo leen ko doon baaxee rek ngir jëmmi Serigne Touba bépp bu ci kii rek dafa kii ci man. waaye bépp ci rafet sëriñ bi la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Iran Ndaw ira maa ngi lay bëggee